mbokk yi compagnie Serigne Seck Sénégal c 3 moo ñëwaat ak yéen ci jongante bi mu baaxoo amal at mu nekk tuddee ko yaatal mbindum alxuraan ren di ñeenteel bi édition ku ci bëgg a bokk da bind lu tollu xët ci alxuraan bind sa tur sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci butiku c 3 bi la gën a jege ci Sénégal wala fépp foo xam ne raabita bi wala fédération bi ëmb jàngalekatu alxuraan yi ci Sénégal am na fa dépôt candidature yi di mbind dina door benn fan ci weeru janvier 2021 war a jeex fanweeri fan ak benn ci weeru janvier 2021 li bees ci jongante ren bi nag bi ñuy amal Sall jagleel ko région yi di maatam Tambacounda Ziguinchor Kolda Sédhiou ak Kédougou ngir gën a suqali mbind mi ci gox yooyu le ñett ñi jiitu ci concours national bi dinañu am neexal yu am solo yu ñu leen jagleel premier bi dina am 6 millions deuxième bi 5 millions 500 troisième bi 5 millions kuréel bi saytu concours bi mu ngi fàttali candidat yépp ne ku ci nekk benn dépo la war a def ak foo ko mën di defee ci biir réew mi kayit wi ngay déposé it yaa ko war a bindal sa bopp ku ci bëgg yeneen i leeral wooteel 76 751 43 42 wala 70 736 36 36. anta bi ni'mati rabbika bi majnuun. mbokk yi ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam tàllal suñuy loxo ngir jéggalu suñu borom mi nga xam ne. mooy borom kàttan te mooy boroomu man ñu di ko tàllal suñuy loxo ngi jéglu ko mbooleem bakkaar boo xam ne def nañ ko te de li ñu ci yóbbu moo di naye doya dig doomu aadama rek moo tax ñu ko waaye xam nañ ne suñu borom mooy borom kàttan xam nañ ne mooy borom ak man ñu xam ne ginnaaw ajjuma ji weesu day waxtaane woon nañ ne diine lislaam de buñ ko bëggee tënk mooy loo xam ne ay pas-pas la yoo xam ne da nga ko war a fas ci sa xol waaye nag la ca teguwaat mooy ay jaamu yàlla yoo xam ne da ko war a def ngir suñ borom muy julli yi juróom ak woor koor weeru weer koor ak natt asaka ak aj màkka ci boo ko mënee beneen bi ca teguwaat mooy ay jëflante yoo xam ne da nga ko war a jëflanteeg doomu aadama yi wala mbindeef yi nga xam ne moom la suñ borom bind moo xam doomu aadama la moo xam mbindeef la mu mën a doon da nga am na ay jëfla faroo jëf fasoo jëflante boo xam ne moom nga war a jëflanteeg moom loola nag li ñu koy woon bokk ca ñu xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa xam la noonu xamaloon nañu ne doom am xar mi nga xam ne yàlla moo la da moo ko daganal ci yow ne la sañ nga koo rey sañ nga sañ nga jëfandikoo li nga xam ne moo nekk ci moom suñ bor yonent bi sa alayhi day wax ne boo demee bëgg ko rey itam bul teg paaka ba ci kanamam te boo koy paaka boobu nga xam ne moom nga war a jëfandikoo tamit na nga fexe ba ñawal ko ba du du sonn ci ci rey ga loolu lépp du ñu woon nekkoon lislaam bàyyi na xel mbindeef yi doomu aadama yëpp am na mbindeef yëpp bàyyi na la xel moo xam muy doomu aadama moo xam muy yeneen bàyyi na leen xel wormaal leen mu doon loo xam ne kon mu war mu war a feeñ nag ci dépp doxiinu jullit mu war a doon koo day wormaal doomu aadama di wormaal fi yàlla yi ngir xam ne yàllaa leen bind te yàlla mi leen bind mooy kilifaam mooy mooy ki nga xam ne mooy buuram kon ki nga la nga xam ne nag sa boor sa buur ko bind da xam ne sa buur moo ko bind la nga xam ne sa sa kilifa moo ko bind loolu yaakaar naa war nga ko wormaal war nga ko jox itam àq ja nga xam ne yellu na ci moom ñu bëgg xam le nag ne lislaam jooje pas-pas yooyee ñu doon wax ne mooy bi jiitu ci lislaam muy da ngaa am loo xam ne danga nga ko war a gëm loolee nga xam ne nag war nga ko gëm dafa am nan la war a doon mooy dafa war a doon loo xam ne mooy mooy mooy liy poussé ci lépp loo bëgg a def wala nga bëgg ko bàyyi lépp looy bëgg a def bala nga caa seqi benn jéego na nga xool ndax loola dëppoo na ak sa ngëm wala dëppoo sa dëppoo wut ak sa ngëm lépp loo xam ne yaa ngi koy bëgg bàyyi itam war ngaa xool ndax loolee dëppoo na ak sa ngëm wala dëppoo wut ak sa ngëm lépp loo xam ne yaa ngi koy jëf itam warees na caa gis ne kii kat lii mu def xam nañ ne wane na ne ab jullit la ndax njullit ga feeñ na ca jëf-jëm jëf kon loolu loolu mu doon loo xam ne mooy ngëm gi loolu ngëm googee nag suñ borom da koo jox itte lool ba tax na ba lépp loo xam ne da ko bëgg a tere wala mu bëgg koo digle bala mu ko bala mu ko wax da koy da koy lënkaleeg ngëm yàlla ngir xam ne ñi gëm ñooy ñi nga xam ne ñoom la jëmale ndigal yi ñoom la jëmale ci ñoom itam tere yi nga xam ne moom la leen tere loola nag bokk na ci yonent bi suñ borom wax na ne yéen ñi nga xam ne da ngeen gëm yàlla na ngeen gëm xam nañ ne comme dañoo woone dañoo woote ne dañoo wooyee ñu gëm yàlla ba noppi waññar bi quoi wax ne gëm leen mooy dañuy won ne suñ pas-pas wala suñ ngëm waxtu wu ne dañ ko war di gën a dëgëral dañ ko war di gën a bàyyi xel ngir xam ne mooy li nga xam ne moo nu mën a tax a mucc mooy li nga xam ne itam mooy tax ñu jaar fi nga xam ne fi lañ war a jaar bu ko defee rek gëm yàlla googee nga xam ne mooy li li li mooy pas-pas yi nga xam ne moom la ñu war a gëm ci lislaam bi ci njëkk mooy dañoo war a gëm ne suñ borom day mu nekk lu am la xam ne itam mooy kenn koo xam ne amut ñaareel amut dimbal kenn koy dimbali amut kenn ko koy jàppale xam ne itam moo mooy buur bi nga xam ne moom képp lañu war a jàmmoo xam ne itam mooy ki nga xam ne moo bind mbindeef yi nekk yépp te lépp loo xam ne war na ci ñoom itam taxaw na ca ci war a taxawee xam ne itam mooy ki nga xam ne amul kenn koo xam ne mën ngaa jaar ci kawam def leneen lu bokk ak li nga xam ne moom la bëgg loolu nag bokk na ca itam gëm ne yonent yépp day suñ borom moo leen yónni bokk na ci yonent yooyu mu yónni nag sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam gëm ni itam suñ borom am na ay malayka malayka yooyee nag gis nañ ne su Sëriñ Tuubaa tudde na leen tudde na leen ay ay ay ay soldaar ñu xam ne kon dafa mel ni suñ borom day nguuram gi da ko da koo tabaxee ci tabaxin wu dëgër ndax ba nga xamee ne am na kàttanu boppam itam wut na ay jif ay yoo xam ne da leen di loo xam ne ñoo xam ne da leen di jëfandikoo ñooñee nga xam ne ñoom lay jëfandikoo itam wute nañu li nga xam ne mooy xew ci doomu aadama yi ndax xam nañ ne soldaar yooyee nga xam ne moom la suñ borom am ñoom doonuñ ñoo xam ne ñuy sonn lañu doonuñ ñoo xam ne ñuy tayeel lañu doonuñ ñoo xam ne itam amul am na jenn itte joo xam ne dana mën a dox seen lañ bëgg a def ndax amul amul benn itte amul benn soxla amul dara lu leen di gaar itam luy tax ñu la nga xam ne moom lañ war a taxawee duñ ko mën a taxawee ni ñu ko war a taxawee wuutee nag ak li nga xam ne mooy soldaar yi àdduna yi xam nañ ne danañ danañ am dégg ñu tële xam nañ ne léeg-léeg ñu wuute xam nañ ne léeg-léeg am na lu leen gaar loo ne dana tax la nga xam ne lañ moom la ñu war a taxawee duñ ko mën a taxawee ni ñu war a loolu du ju woon na kon ne suñ borom moom jël na ay matukaayam yu mat sëkk ci ñi nga xam ci doomu aadama yi ba li nga xam ne moom la moom la bëgg ñu def ko li lay matukaay yi tax ñu war a def li ñu war a def lépp itam te di ko bàyyi xel moom suñ borom ji suñ borom indi na ko bokk na ci itam bi nga xamee ne suñ borom xam xam na ne ñun gëm nañ ne mooy suñ kilifa xa gëm nañ ne itam mooy ki nga xam ne mooy kuy war a war a war a jaamu waaye gaamu yàlla googee duñ ko defee ci suñ xelum bopp duñ ko defee ci suñ gis gis-gisu bopp waaye dañ koy defee ci ni nga xam ne ni la ko suñ borom bëggee suñ borom nag lu ak kenn ku ne di la wax ne nii laa ko bëggee waaye dafa yebal ay ndaw yoo xam ne ñoo nuy moo ñoo nuy wax nan lañu war a jaamoo suñ borom mooy ñi nga xam ne ñoom la tuddee ay yonent ñooñee nag andi na boole na leen ak ay téere yoo xam ne moom lañ andi ngir ngir wax suñ borom wax li nga xam ne moom la suñ borom bëgg ci doomu aadama muy wane ne xam ne yonent yooyee ñoom itam la ñuy kawe kawe ci suñ borom itam amul lenn loo xam ne sañ nañ koo digle wala ñu sañ koo tere ci lu dul lu ci li nga xam ne moom la suñ borom bëgg ak li nga xam ne moom la suñ borom ak ak li nga xam ne moom la suñ borom tere li suñ borom tere balañ ko li ñi nga xam ne balañ sañu ñëw tere kenn lu dul ne yo suñ borom moo leen tereloo sañu ñëw digal kenn itam lu dul ne suñ borom moo leen digaloo ñu ngi war a gëm itam ne comme suñu borom dañoo xamal ne ñun ñii day day am loo xam ne moom la ñu wàccee ci àdduna si mooy bi ci njëkk mooy ñu ñu nangul suñu borom ne ko yaay suñu borom ba ca teguwaat mooy àdduna si yi nga xam ne moom lañ nekk itam ñu di ko jëfandikoo ci ni nga xam ne ni la ko suñ borom bëggee ñu jëfandikoo ko xéewal yi fi nekk sañ nañ koo jëfandikoo waaye nag nañ ko jëfandikoo ci ni ko suñ borom bëggee sañu koo jë sañ koo jëfe rek ci suñ bànneexi bopp wala suñ suñ gis-gis nit waaye dañ koy jëf ci ni nga xam ne ni la ko suñ borom bëggee loola nag xam nañ ne képp koo xam ne daa am lu ñu lay defloo war naa am bis boo xam ne danga war a taxaw rek ñu laaj la la nga doon def nan nga ko doon defee ak loolee nga bàyyi naw ko lu tax nga bàyyi ko loola moo tax nag bis bis penc ci a ñàkk ndax comme dañ ni jëfloo ku ñu jëfloo ku ne jëf ji doon doon lay continuer di wéy waaye dafa war a dafa war a am fu mu yem bu ëllëgee ñu taxaw la laaj la loolee nga doon def nan nga ko doon defee ak li nga xam ne bàyyi nga ko lu tax lu tax nga bàyyi ko loola nag mooy kon dañoo war a gëm ne bis penc dana ñëw te itam amut sikk ci ne dana dana dana ñëw gëm itam ne lépp loo xam ne gëm yëpp ci li nga xam ne dana xew foofee ci bis penc ba moo xam muy aw yiw woo xam ne moo xam muy ak pay goo xam ne dañ koo def ci lañ war a def mu fay suñ borom fay nu ko wala mu doon mbugal moo xam ne dañoo ñàkk a def la nga xam ne moom la suñ borom digle mbugal moo war a ñëw am na ay kër yoo xam ne itam ñooy këri payya ba ca njëkk mooy këru pay ga mooy këru pay ga mooy ajjana përu këru mbugal ga mooy sawara ginnaaw yooyu itam ñu gëm ne lépp loo xam ne comme suñ borom dañuy jëfloo te li te ñu xam ne ku ñuy jëfloo ku ne war nga léeg-léeg mën nga am yooyu dugal ca biir yoo xam ne bokkut sa la la ka lay digal def bëgg nga def ko waaye moom suñ borom dañoo teel la xamal ne lii maa ngi leen digal de nag maa ngi leen di digal waaye nag na ngeen xam ne munu leen a def lenn lenn lu bokkut ak li nga xam ne moom laa leen digal ngeen bëgg a wane ne ma ñoo ngi koy def te bokkut ak ni ngeen ko war a defee wala yéen ngi bàyyi loo xam ne maa leen ko tere ngeen di ko bàyyi la tax ngeen ko bàyyi bokkut ak ni nga xam ne ni laa leen ko ni laa ni laa ni laa ni laa ni laa waxee ngeen bàyyee ko ne na mooy amul dara loo xam ne lënt na ma ci kaw suuf amul dara loo xam ne itam nit sañ na koo def ci kaw suuf wala lu man di doon te doonul ne dama caa dama dama caa dama ko jox kattanu gu mu ko mën a defee dama nangu itam loola mën a am kon loolu moo ñuy xamal kon ne gëm gëm dogal mooy xam ne suñ borom mi nga xam ne moo nu sant ñu jaa war koo jaamu war a jaar fi nga xam ne fi la bëgg ñu jaar fa moom moomee day dara ump ko dara lëntul ci moom ndax xam na lépp boo bëggee wane ne ab jullit nga ba noppi te la ngay def doonul fa mu war a teguwul fa mu war a tegu bu jàpp ne yaa ngi nax suñ borom ndax suñ borom xam na lépp boo jaar boo dee ab jullit nga ba noppi ci bàyyi dara te loolee tax nga bàyyi ko loolu tax nga bàyyi la la nga bàyyi bàyyiwoo ko ngir yàlla itam bul jàpp ne yàlla xamul ne la nga bàyyi bàyyiwoo ko ngir moom kon xam na lépp kon dañuy won ne moom kenn mënu koo njublan kenn munu koo nax kenn mënu koo jaar feneen fu fu bokk fu bokkut ak fi nga xam ne fi lañu war a jaar képp loolu nag li ñu li ñuy wan ne pas-pas yii dañ ko war a gëm moo di ne jibril ah, dafa mas ñëw ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di ko laaj lan mooy gëm mu ne ko nag gëm yàlla gëm mooy nga gëm ne yàlla ku nekk la gëm ne yitam ne malaayika yi ah, ñu am lañu gëm ne yitam ne téere yi suñ borom moo leen wàcce gëm yonante yi ne itam suñ borom moo leen yónni gëm bis penc itam gëm dogal moo xam dogal boobee bu neex la wala bu naqari la suñ sëñ su yi ñëw nag di leeral loolee ci tasawudu subaan di wax ne seen gëm yàlla mooy lan mooy ngeen gëm ni yàlla lu nekk la gëm gëm itam ne malaayika yi ay soldaare suñ borom lañ gëm ne itam téere yi nga xam ne moom lañ moom la suñ borom wàcce téere yooyee ñu ngi jógee suñ borom gëm itam bis penc gëm itam bis boobee nga xam ne bis tiit la bis la boo xam ne kenn ku ne la nga doon làq wala la doon nëbb suñ borom dana ko jaar dana ko won ci kanam doomu aadama yëpp ñu gis ko kon loolee lu mat a bàyyi xel la xam na it la nga taxoon nga di ko def xam li taxoon la nga doon bàyyi nga bàyyi ko kon nañ góorgóorlu bu baax a baax ci ragal yàlla tey bàyyi xel suñu borom nañuy bàyyi suñ xel bàyyi xel suñu borom ci lépp loo xam ne ñoo koy ñoo ngi koy def wala ñu di ko bàyyi nañ doon loo xam ne suñ borom a tax ñu di ko def wala la ñuy bàyyi itam na doon loo xam ne suñ borom rek moo tax ñu bàyyi ñu di ko bàyyi ñu ngi jéglu suñu borom nag mi nga xam ne mooy tey tuub ci suñu borom mi nga xam ne mooy te tub tub goo xam ne dañ koy xamal ne ko yow suñu borom day xam nañ ne ay jaam lañu yu doyee di yoo xam ne dañ laa tooñ tey dañoo te kiñ kiñ tooñ mooy seen mooy kilifa mooy seen kilifa kon sañ nañoo ñëw ci moom ngir tuubal ko jéggalu ko xamal ko itam ne ko nag mënuñ dara ci suñu bopp ci ak ci jañ loo xam ne nar nañoo dal mënuñ dara ci suñ bopp ci indi xéewal goo xam ne bëgg nañ ko lépp yow sa loxo ci yow la nekk kon nañ bàyyi xel loolu ñoo ngi jéggalu suñu borom nag di jéggalu doomu aadama yëpp yàlla nañu suñu borom boole jéggal yàlla nañu suñu borom borom boole boole boole doole boole ba jàppe nu jàpp jéggal nu ci te bañ ba toppe ci ak maanaam waaye mu topp na ci yërmandeem ak njéggalam te yërmandeem ak njéggalam yaatu na lépp yaatu na ci ñëpp nag waaye nag dafa wax ne fa sa na lillaziina yattaquun ñi nga xam ne dañuy jéema a góorgóorlu di jaar fi ñu war a jaar ñooñe laay jagleel njéggal ga ak ak googee ak yërmande jooje kon ñu yal nañu suñu borom defal yërmande yal nañu suñu borom jéggalal boppam te xam ne ay doomi aadama lañ ñu matadi yu yu mënta jaar fañ war a jaar yoo xam ne itam yu doyadi lañ yoo xam ne fañ war a tegg itam léeg-léeg ñu jaar fa te loolu lépp matadi doomu aadama rek moo tax ñu def waaye xam nañ ne suñu borom mooy suñu borom rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab